comme que dañ na un Massarouba un max ah ñu ñëw nag ci masques yi di ko joxe comme que man couturière la pourquoi pas mënuñu def ay masques ñëw ñaw ko jàppale suñu monsieur le maire Moustapha Mbengue honorable député suñ si jógee ñëw suñu délégué euh, délégué de quartier ah jébbal ko li nga xamante ne moo nekk masque yi nga xamante ne moom la kenn ku si ne war a takk ñu defar ci yi nga xamante ne yu mag la. mais ci xalé yi lañ jëkke parce que nit ñi toujours dañuy faté xalé yi ta xalé yi ba tey dañuy gën ndax xalé yi ñoy dem ci boutique yi xalé yi lañuy yoni donc ñun dañu ñëkke ci xalé yi nga xamante ñom ñoy tout tank yi utale ay masque yi nga xamante ah kenn ku si ne booy génn di nga ko mën jël protéger wu do wal kenn kenn du la wàll. bon geste bi may bi Tabara def moy geste bi sénégalais di xaar ku ci nekk sa morom ndax feebar bi ku ci nekk xam ni solidarité rek ci mën a dara parce que tey commune Kër Massar waxuma au delà de commune Kër Massar mais Sénégal moo soxla genre geste yi